maa ngi doon wax léegi ci wàllu euh, mbirum loi bi nga xam ne Sénégal mooy tere wàllu góor jigéen donc ndax dañ laaj léegi premier ministre Canada mu wone moom taxawaayam ci àdduna bi pour défendre lépp luy droit wu doomu aadama ma xamal ko ni loolu bu ñu ko nangulee loolu moom ci réewam nañu nangul suñu réew fii ci Sénégal ne suñu ay loi dafay taxawal li nga xam ne ñun moom la ñu nekk muy d'abord ay africains ay ay africains waaye itam li ci gën a bëri ay nitu diine ak majorité islam mais nitu diine globalement et que suñu dëkk dafa am sutura dafa am ay valeurs yoo xam ne mayewul ñuy nangu lépp luy wone euh, loo xam ne méngoowul ak suñu gis-gis wala góor jigéen euh, loi bi moo ko fi tere donc loolu xamal naa ko ne fas yéenewuma ci fànn boobu en tout cas yëkkati si benn doxalin buy delloo Sénégal ginnaaw si taxawaayam loolu du tere Sénégal réewu démocratie la réew buy respecté droit de l'homme la waaye lépp nag ci biir suñu dundu niñ ko fas yéene doxalee ci si worma ak ci sutura loolu moom Sénégal euh, dina si taxaw bu baax a baax te du ci dellu ginnaaw benn yoon.